teg ci poste nga war a liggéey ci poste bi euh, excusez-moi dañ lay dañuy tijji benn entreprise l'entreprise en réalité c'est une entreprise sénégalaise moom mooy Medis Sénégal entreprise bi depuis le 15 janvier l'entreprise elle a fermé ses portes si vous avez quand même une benn recul tuuti di ngeen gis ni même Guy Marius Sagna il a fait une publication dans ce sens-là et que ñun tey fi ñu tollu Sénégal 60 ans après les indépendances amuñu lu dul benn entreprise pharmaceutique mu nar a tëj mu tëj portam depuis le 15 janvier en pleine pandémie et que tey maanaam li nga xam ne moom moo ñu war a alerter ñun ñi nga xam ne nous sommes des sénégalais et que l' Afrique en général li nga xam ne moom moo ñu war a alerter par rapport ak pandémie bi am amaana moom mooy nan la ñuy jaayante ba am un système sanitaire boo xam ne dafa baax nan la ñuy jaayante ba am système sanitaire boo xam ne dafa baax mais aussi en même temps ñu am. des entreprises pharmaceutiques boo xam ne tey lu ñu soxla lépp dañ koy defar et que Médis Sénégal entreprise boobu tey ñu tëj ko en même temps entreprise bi dafa amoon trois cent 317 travailleurs des pères de famille et des mères de famille ñoo xam ne ñoom ñoo fa doon liggéey il gagnaient là-bas leur vie fa lañ doon jaayante fa lañ doon liggéey comme tout bon sénégalais ñi nga xam ne dañuy xëy di dem ci di dem seen seen seen dóor waar di ko dóor et que ñooñu noonu tey amuñu nu ñu def au delà de ça da ngay gis ni au Sénégal ces informations nous nous sont méconnues et que entreprise bu mel noonu te état bi actionnaire la ci entreprise bu mel noonu warul tëj ñun c'est déplorable tey bu ñu bu ñu porter en réalité cette question au niveau de la toile c'est-à-dire que en Afrique nous devons nous battre pour euh, un système meilleur parce que tey système yi nga xam ne moom moo nekk en Afrique c'est pernicieux parce que mënumaa gëm ne nos autorités ils sont ils, sont ils conscients de ce qui se passe en Afrique et boo les indépendances fu ñu toll ñu am benn entreprise boo xam ne dañoo dem ba toll ci day tëj 377 employés yoo xam ne pour ñoom ñu ñu mën a réintégrer waat cette entreprise état bi mën leen a jàppale ñu teguwaat sax amaan ils sont obligés d'aller sur la toile pour porter cette question là or que ni en réalité cette cette cette question maanaam problème bii nii ça devait ça, ça être résolu depuis belle lurette parce que tey euh, trois cent dix sept employés yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci entreprise boobu bi problème bi amee en le quinze janvier deux mille deux mille vingt bi ñu nekk pratiquement le dix neuf ils ont alerté le trois ministres consécutifs dañoo saisir en réalité le ministre du travail de l'industrie et aussi le ministre de la santé ñoom ñëpp lañ saisir tey ñu nekk ci benn pandémie ñu tëj pharmacie boobu nga xam entreprise boobu nga xam ne moom moo doon defar tey ay chloroquine ak ainsi de suite ainsi de suite et que c'est c'est c'est dommage c'est dommage au Sénégal loolu noonu di fa am ay trois cent dix-sept pères de famille di di di ñuy obligé di dund ci genre circonstances yu mel noonu et que maanaam da ngay gis ni ñun ñu ñu jiite dañoo dañoo ñàkk pastif ñu ñu jiite dañoo ñàkk Pastef par rapport ak li nga xam ne moom la ñu waroon taxawaay bi nga xam ne moom la ñu waroon am parce que boo gisee par exemple yenn genre affaire yi man di xew Afrique dama naan maanaam c'est une inconscience collective cette inconscience collective moom moo tax tey ñi nga xam ne dañoo jiite lu leen neex dañ koy def bu ay hôpitaux tëjoo non garaawul quoi na hôpitaux yu tëju c'est pas important nit ñi bu ñu deewee c'est pas important mais aussi nañu dem ñu tabax benn ñu defar benn TER boo xam ne dañ ciy defar benn mille cinq cent milliards wala lu ko ëpp te nit ñi à côté amuñu sax ay médicaments yoo xam ne par exemple bu ñu fajoo moom la ñuy naan pour mën a wér à côté amuñu ay écoles yoo xam ne wala ay universités yoo xam ne ñoom ñooy mën a assurer suñu suñu suñu ñun suñuy moroom ak suñuy ñi nga xam ne ñoom la ñu ñoom la ñu nekkal génération ñu mën a jàng jàng boo xam ne dafa mucc ayib Sénégal ngay gis quand tu es dans d'autres pays tu vas automatiquement. da ngay nekk ci un une classe ci TD Sénégal boo fa nekkee par exemple on a un professeur pour quarante étudiants c'est dommage or que ni par exemple boo génnee ailleurs norme bi moom mooy un professeur pour vingt cinq étudiants loolu ce sont des problématiques yoo xam ne tant que peuple yi taxawuñu ne lii dafay dakk affaire yi dara du mës a changer ce sont les problèmes fondamentaux yoo xam ne maanaam nit ki moom la moom la moom la moom la Fidel Castro en réalité doon wax naan boo nekkee ci dëkk munoo faju boo feebaree munoo faju amu système éducatif bu baax non boo rebelle am nee na moom dafay jàpp ne danga feebar quoi et que ñun tey ci système yooyu la ñu nekk non seulement boo feebaree doo li nga am as néew pour di ko fajoo li nga am as néew muy une entreprise boo xam ne Sénégal la nekk certes c'est une entreprise privée mais en même temps de surcroît état daf ci am ay actions état actionnaire la ci entreprise boobu noonu lan moom moo tax entreprise boobu ñu koy tëj ce sont des questions fondamentales yoo xam ne gars yi dañ ko war a résoudre et que l' état sénégalais il gagnerait mieux à trouver une solution par rapport à ce problème là c' est très très important loolu moom moo ëpp solo lu lu lu lu leneen lu loolu loolu moom moo ko ëpp solo parce que tey mënu ma concevoir en fait pays boo xam ne maanaam yow yow yow ce système ce système de santé maanaam tu tellement dépendant que ni Sénégal chaque année. dafay importer plus de euh, mille par exemple plus de cent trente sept milliards cent trente sept milliards de médicaments la Sénégal di importer buñ ñu ko boo ko xaymaa ci valeur absolue en fait dafay tollu ci somme boobu Sénégal chaque année te benn entreprise bi ñu am nee nañ dañ koy tëj te entreprise boobu pratiquement en vingt quatre heures li mu mën a li mu mën a produire par exemple ci médicament kenn xamut nu mu toll léegi nga gis ni par exemple Sénégal chaque année en deux mille dix huit on a importé pratiquement plus de. cent 137 milliards de de de, de médicaments ñuy tëj benn entreprise bi nga xam ne moom la ñu am te mu doon mu doon mu doon defar ay médicament en réalité da nga naan ñun ci ban pays la ñu nekk en fait c'est ça loolu moom mooy la question fondamentales le bas peuple il souffre ñu ñun le bas peuple dañuy souffrir ba pare en réalité xamuñu par exemple ce système de domination et de prédation maanaam fan la nekk nga nekk ci dëkk boo fajoo boo boo boo feebaree mënoo fajoo nga nekk en pleine pandémie adduna bi ñëpp di daw ci benn médicament boo xam ne tey bi nga xam ne àdduna le professeur Raoult là il a fait des découvertes qui sont éminemment importantes et, et, et éminemment importantes yëpp a ngi daw ci médicament boobu ñu ne tey par exemple Sénégal entreprise bi nga xam ne daf ko amoon pour muy créer ce même médicament entreprise boobu dañ koy tëj imaginez-vous tey par exemple États-Unis les euh, les États-Unis d'Amérique dañuy réquisitionner ay ay médica ay chloroquine yoo xam ne Inde lañ koy jëlee. dañ ciy def lu nekk Donald Trump da koy jar da day jaayante day def lu nekk pour médicament yooyu noonu dugg biir États-Unis te tey Sénégal ñun am nañ benn entreprise boo xam ne daf doon fabriquer chloroquine tey imaginez vous tey eh, entreprise boobu noonu bu ñu ko tëjul woon en pleine pandémie et que aujourd'hui l'économie mondiale elle est elle est elle est elle est moribonde l'économie mondiale aujourd'hui elle catastrophique on est en phase de récession un peu partout dans le monde tey dara demul dara dikkul tey Chine la la euh, la pandémie bi njëkk a njëkk njëkk daaneel tey Sénégal par exemple lépp lu ñu soxla rek ci àdduna dañ koy ñaan amatuñu Afrique en réalité lu ñu soxla tey financement étranger yi ñoom ñoo ñoom ñoo ñu mën a ñoom la ñuy xaar pour ñu dimbali ñu tey imaginez-vous entreprise boobu bu doon dox. par exemple de de de ressources et de plus-value par rapport ak ci suñu économie ñuy def ñuy produire de la chloroquine chez nous ba pare di ko vendre à l'extérieur à l'étranger de ce coup par exemple ñun ku nekk xam na ni par exemple suñu économie dafa fragile et dafa dafa dépendante ci euh, les financements étrangers tey pare bu ñu bu ñu bu ñu amoon loolu noonu mais loolu noonu lépp volonté étatique la laaj état boo xam ne da ngay gis entreprise boo xam ne dafay employé tel nit parce que et que et que li nga xam ne moom moo gën a grave maanaam cette cette ce devoir régalien boo xam ne état daf ko am maanaam protéger tes tes tes citoyens trois cent 317 pères de famille ñu nar leen a dàq yow état boobu ba tey enclenché woo des procédure de négociation pour entreprise boobu mën a tegu pour entreprise boobu noonu bañ a tëj boobu ba tey ainsi de suite nga koy gis un peu partout dans le système dans le système sénégalais comment il est conçu système bi nan la tëggoo système bi nan lañ ko tënkee yow da ngay da ngay da ngay da ngay sax jaaxle maanaam ñun ci ban paradigme en réalité la ñu nekk. c'est ça c'est ça en fait ñun ci ban paradigme la ñu nekk aussi maanaam quel modèle de développement nous avons adopté maanaam écart bi nga xam ne cette liberté bi nga xam ne dañ ko may suñu ay élus liberté boo xam ne il font ce qu'ils veulent ils de la population lu leen neex la ñuy def nañu tëj ay entreprise anyway na entreprise étrangère yi ñëw jël lépp li nga xam ne moom moo fi nekk anyway mais loolu ba kañ ça ne doit pas continuer Et que c'est malheureusement, c'est ce que l'on qui se passe en réalité dans nos pays. Ce qui se passe dans nos pays. tey boo xoolee suñu dépendance dépendance bi nga xam ne dañ ko am par rapport ak ak ak ak suñu système de santé te nekkul suñu système de santé rek moom moo dépendant ci ci ce qui se sur les sur les étrangers mais si suñu lépp en fait par exemple boo xoolee am na benn filière boo xam ne dafa am dafa am njëriñ moom mooy euh, euh, la filière laitière am na benn benn entreprise boo xam ne benn sénégalais moom moo ko tijji bàcc li la tudd moom mooy la laiterie du berger entreprise bi noonu la tudd mais Bagoré Bathily bi mu ñëwee en fait c'est un vétérinaire de formation mais ci secteur bi nga xam ne daf koy def ci évoluer dafa gis ni par exemple Sénégal chaque année dañuy importer à hauteur de soixante cinq milliards ci lait en poudre. pour mën a ñëw suñu dëkk transformer ko par exemple li nga xam ne ay vitale da koy def mooy seen meew meew meew yaawur yooyu noonu nga xam ne ñu ko def Bagoré Bathily il a construit il a créé une usine pour par exemple suñu éleveuru sénégalais éleveuru sénégalais yi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu kiwee bu ñu amee bu ñu de amee ay ay ay ay seen voué en fait bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu transformer ko au niveau au niveau local mais bàcc Bathily temps yële maa ngi doon seetaan benn benn documentaire ci moom mais il rencontre tous les problèmes du monde et c'est c'est c'est un entrepreneur sénégalais par exemple moom euh, pare meew bi nga xam ne da koy jëlee Richard Toll di ko andi Dakar ci entreprise am pour mun ko transformer lim ciy fay ci ay tax moom moo ëpp boo xam ne da doon importe par exemple lait boo xam ne daf koo jëlee daf koo jëlee Belgique parce que Sénégal pratiquement Belgique moom moo koy fournir lu ëpp ci ci ci lait en poudre par exemple c'est un paradox dans ce contexte là nga ne noo yow tu es un ñu am ñu ne ñu nous avons des dirigeants yoo xam ne ils aspirent au changement ils aspirent au changement ils aspirent même à la croissance loolu la ñuy loo or que ni en réalité tey fi ñu toll amuñu man ñun ñun sur le plan industriel nous n'existons pas de Sénégal sur le plan industriel nous n'existons pas tey ñu dem ba toll fii ñu ne dañuy ferme par exemple euh, une entreprise boo xam ne daf doon daf doon fabriquer ay médicaments chloroquine paracétamol et ainsi de suite mais mauvaise gestion moom moo tax ñu ne dañ koy tëj parce que tey en réalité boo xoolee entreprise boobu noonu c'est c'est c'est savamment orchestré Sénégal tout est politisé da ngay gis benn entreprise boo xam ne ça devait être en fait ça devait être une économie de rente benn entreprise boo xam ne daf doon permetre par exemple Sénégal am ay revenu yu am solo am benn taxawaay boo xam ne dafay gérer sax souveraineté parce que souveraineté sanitaire dañ ko war a am ñun amuñu souveraineté sanitaire suñu amoon souveraineté sanitaire suñu dirigeants yi bu ñu feebaree du ñu génn Afrique te tey da ngay xool ni suñu dirigeants yi à chaque fois qu'ils sont qu'ils sont malades à l'étranger pour se soigner ils sont obligés de le faire parce que amuñu cette souveraineté am nañ cette expertise c'est évident tey gis nañ li nga xam ne exploit yi nga xam ne Afrique daf koy def ak Sénégal en particulier par rapport ak coronavirus bi combien de cas ont été traités et et combien de cas ont été ont ont, ont eu la guérison au Sénégal combien combien de personnes ont été soignées par nos médecins donc l'expertise est au rendez-vous mais ce sont les moyens qui ne sont pas au rendez-vous et l'apport de l'État qui n'est pas au cest c'est-à-dire que nan la ñuy def tey ba am ay yeneen entreprise yoo xam ne dañuy mën a ñëw am am am benn taxawaay boo xam ne état moom moo leen di état moom moo leen di porter te tey entreprise boobu depuis le 15 lañ ko tëj depuis le quinze lañ ko tëj père de famille yooyu noonu ñu leen trois mois arriérés de salaire ñu yóbbu leen en chômage technique te ñu leen et que boo xoolee keroog am na benn Guy Marius dafa demoon def rencontre ak travailleurs yooyu noonu Agnam mu dugg ci entreprise bi pour rencontrer ces travailleurs là lui aussi c'est un père de famille nga gis ni ñun suñu système yi maanaam nous avons des systèmes yoo xam ne maanaam les gens ils son ils sont en fait bëgguñu ñu ko man noonu laa ko mën a jàppee yow koo xam ne day dox pour lu gën ci yow ngay jàpp un père de famille di ko licencier parce que tout simplement il s'inquiétait pour des gens qui souffraient qui n'avaient pas reçu leur salaire mais aussi qui était sous le coup par exemple d'un licenciement nga dàq ko comme ça de façon très facile de façon lapidaire et que kan moo nekk ci ginnaaw entreprise boobu lan moom moo tax ñu tëj ko mais mauvaise gestion moom moo tax ñu ñu bëgg ko tëj et que aujourd'hui tey c'est le moment ñu am un état boo xam ne il est responsable il va prendre ses responsabilités pour nationaliser cette entreprise la et que et que noonu lañu ñu war a def tey bu ñu bëggee am benn souveraineté dans ce domaine l'État sénégalais doit prendre ses responsabilités moom mooy Médis Sénégal état bi daf ko war a nationaliser et que mieux état état bi dafa war a créer yeneen entreprise yoo xam ne dans ce domaine là dañuy construire par exemple des médicament yi nga xam ne nit ñi sénégalais yi dañ ko soxla mais aussi monde bi dañ ko soxla c'est ça qui est important mais mënoo am benn entreprise qu'elle soit privée ou ou, ou nationale et tout mais mënoo am benn entreprise nekk ci situation yi nga koy bàyyi muy tëj ba pare nga ne da ngaa bëgg a jëm ci changement nga ne da ngaa bëgg ci émergence nga ne da bëgg am population boo xam ne bu ñu feebaree dañuy faju loolu mënul nekk c'est archi foo et que ñun suñu ay dirigeants dañoo ñàkk Pastef à telle enseigne que ni peuple bi bu ñu porté wul yenn combat yi affaire bi du mën a changer porté yenn combat yi nag effectivement Baye Assane maa ngi door a lire sa message t'inquiète effectivement ñun duñu suñu suñu dëkk yi nii dañoo suñu dëkk yi dañoo am yenn yenn yenn yenn yenn njiit yoo xam ne dañoo am yenn njiit yoo xam ne seen Pastef bëriwul seen farlu bëriwul et que bu ñu portéwul yenn combat yi sur la toile nit ñi du ñu yëg li nga xam ne moom moo xew ñoom du ñu activé wu pour mën pour mën pour mën a dox ay jéego pour loolu mën a farata pour loolu mën a saafaraw et que c'est déplorable nit ñi toll fii nii ay ay entreprise di tëj sont obligés ñu wax ko ci toile bi benn nit ñetti nit ñeenti nit dégg ko waxtaanee ko nit ñi door cee wut solution et ba kañ ba kañ kañ la ñuy am par exemple ay dirigeants yoo xam ne ils seront assez responsables pour porter le développement de de l'Afrique ils seront assez responsables pour porter le changement du continent c'est ça qui est important mais aujourd'hui tey fi nga xam ne dañ fa toll moom mooy moom mooy moom mooy tey dañu nekk ci dëkk yoo xam ne am nañ ay njiit yoo xam ne seen gis-gis seen gis-gis effectivement ils sont bien comment orchestrés parce que il ya a il y a des gens qui nous qui nous ailleurs mais à quelques-uns moom mooy par exemple une minorité boo xam ne dafay am leen loo xam ne rek daf leen koy jëriñ minorité boobu noonu bu peuple bi jàngulee intéressé wu leen bu peuple bu feebaree bu fajuwul intéressé wu leen et que c'est dommage nit ñi dem bay tollu foofu noonu c'est très dommage te da ngay xool nga xam ne boobu moo xew et que da nga koy gis dans d'autres pays ay Bolivie bi fa Evo Morales nekkee nekkee le président Bolivie bi Evo Morales nekkee le président bu ñu tollee ci genre situation yi comme Afrique fi mu tollu rek amuñu ay hôpitaux yu baax amuñu système éducatif bu baax amuñu woon dara Evo Morales bi mu ñëwee maanaam dafa ñëw am entreprise yu bari yoo xam ne dafa ko jël nationaliser ko pour dëkk bi mën a am xaalis mais mi encore am na contrat yoo xam ne dañ ko signe woon ak les étrangers ça Evo Morales bi mu ñëwee mu changer le rapport de profit. changer le rapport de profit moom mooy modifier les contrats état bolivien bi doon am par exemple au début bi ñuy door a signer contrat bi contrat yi l' état bolivien était lésé dans dans dans ces contrats là mais Evo Morales bi mu accédé au pouvoir dafa changer contrat yi changer les rapports de profit par exemple état bolivien bi moom moo doon ëpp li nga xam ne daf ko doon am que les entreprises étrangères il nous faut de bons dirigeants tout simplement et am nañ fenn foo xam ne dañ fa toll état sénégalais bi mën naa sauver. trois dix 317 employés mais mu sauver leen mu nationaliser entreprise bi wala mu débloquer xaalis pour par exemple euh, woo des des des entrepreneurs euh, nationaux des gens qui ont la possibilité et qui veulent investir dans ce domaine-là qu'ils qu'ils qu'ils essaient de sauver cette entreprise-là c'est aussi simple que ça qu'ils trouvent les moyens qu'il faut et que ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon doon sàcc xaalis bi nga xam ne moom lañ doon moom moom moo fa nekkoon doon doon doon faire en fait une très mauvaise gestion ñooñu qu'ils soient qu'ils C'est aussi simple que ça. L'État doit tout simplement trouver une solution face à ça. tey Afrique dañu dem ba tollu feen foo xam ne les gens ils sont inac inactifs nit ñi ñu wax nañ ñu rey sax mais garaawul quoi yàlla moom moo ko fi teg nañ ñu nañ ñu nañ suñuy doom par exemple duñu am benn perspective d'avenir mais garaawul yàlla moom moo ko fi teg euh, suñuy ñooñ duñu duñu nekk par exemple da ngay toog nekk Sénégal quoi nga nekk benn magum jëmm ko quoi dem ba toll nii ma toll ndekki sax mënoo ko jëndal sa bopp nga bokk par exemple sur les deux cent soixante dix mille chômeurs yoo xam ne chaque année état mënu laa wutal sax nga liggéey même bu nekkee en réalité et souvent c'est pas et que bu ñuy calculer par exemple le nombre de chômeurs da ngay nekk koo xam ne yow tu cherches de l'emploi et que Sénégal chaque année da gis ni il a plus de deux cent soixante dix mille chômeurs yoo xam ne dañuy xëy di wër liggéey suba ba ngoon duñ ko am. état bi mënul ci ñoom dara et que nekk ci benn dëkk boo xam ne nga wala nga nekk jigéen boo xam ne maanaam toll nga ci defal sa bopp mais munoo am liggéey c'est très difficile munoo jëndal sax sa bopp ndékki c'est très difficile boo feebaree munoo faju c'est très difficile c'est déshonorant au final ça déshonore en fait day déshumaniser la personne tey fii kenn ñaanul yàlla di yeewu ñu lay jox ndékki nga am vingt ans vingt ans sax buggoo ko am ñu lay jox ndékki et que Sénégal da ngay am dem ba am trente ans amoo benn perspective d' avenir non mais c' est clair quoi loolu c' est une réalité c' une réalité c' est une vérité absolue Sénégal et que ñun dañu nekk ci yenn système yoo xam ne et que rapport yooyu noonu tant que ñu ngi am te les peuples ils ne se posent pas les très bonnes questions pour pouvoir trouver des solutions mais duñu mës a changer duñu mës a changer tey suñu gis-gis dañuy jàpp ne lépp lu am rek yàlla la quoi lépp lu mënti am yàlla la lépp lu mënti am non garawul yàlla moom moo ko fi teg or que ni les gens ils sont là ils ont été élus pour régler des problèmes par exemple le président actuel on l'a élu pour qu'il puisse régler nos problèmes wutal jeunes yi liggéey système de santé bi mu changé ko ñi nga xam ne dañuy jàng seen jàng maanaam seen taxawaayu njàng amut amut amut benn benn benn soubassement bu dëgër mu changé ko c'est pour ça qu'ils sont là pour qu'ils règlent des problèmes mais ñoom ñooy ñëw sax yokk la ay problèmes moom mooy par exemple lu lu lu as néew bi nga xam ne yow amoon nga ko pour di ci suturlu maanaam dañuy ñëw nangu ko ci yow pour tout simplement l'intérêt de quelque de quelque particuliers ay particuliers yu ndaw ay benn nit ñaari nit ñetti nit au détriment de tout un peuple au détriment de toute une nation nation boobu en réalité ils sont là passifs à attendre en réalité le bon samaritain boo xam ne moom mooy ñëw changé la donne non non non non peuple yi ñoo war a prendre ses responsabilités responsabilité buñ ko deful dara du changé dëkk yi changé ci àdduna bi yëpp noonu lañ def ba changé et que dëkk yi tey fi ñu toll xëy ñu xëy rek toll fa j'ai j'ai l'habitude de dire que ni après la seconde guerre mondiale l'Europe était un tas de pierres bu du loon plan Marshall ak liggéey bu dëgër du ñu changer xoolal tey la Chine de 1947 à nos jours ñaata ñaata ñaata plan de développement la ñu posé pour mën a tey yegg tey fii ñu toll. et que c'est ça et que aujourd'hui c'est ça qui est important xam nga tey ñun dañoo war a am ay société civiles yoo xam ne ils sont avisés bu une société civile avisée ni autre que ni tey nga nekk ci benn dëkk di dund lenn loo xam ne yow tout simplement tu es persécuté non seulement tu es persécuté mais on te pousse en en réalité pour nga dem ci ay extrémités yoo xam ne xamoo nu mu toll. parce que tey mënoo man jeune ne peux pas concevoir un jeune quoi de mon âge tu obligé de prendre la Méditerranée pour tekki. quoi da ngay nekk un jeune nga toll ni man nga ne non damay parce que am perspective d'avenir je suis obligé ma jël gaal bi en fait damay mettre sama dund ci hypothèse aléa bu ma deewee baax na. bu ma dundee maanaam dinaa mën a jëriñ samay waajur maanaam ci pers ci ci ci état d'esprit boobu la jeunes yoo xam ne dañoo mel ni man ci lañ toll état d'esprit boobu ngay xalaatee parce que en fait tu as te dis ni la vie que de mène que n'a pas n'a pas une forme d'utilité dund bi ngay dund amul sens en fait parce que tey par exemple yaa ngi nekk ci benn système boo xam ne yaa ngi nekk ci benn dëkk boo xam ne dara mënaloo ko sa bopp donc autant mourir que de vivre dans ces conditions là en réalité l'Afrique l'Afrique dans son, dans son entièreté avait les moyens de créer des emplois pour ces jeunes loolu mënut deñ mënut deñ mënu mënuñoo teg beneen schéma boo xam ne Afrique mënul demal boppam mënuñoo teg beneen schéma boo xam ne Afrique dafay nekk une exception dans un monde Afrique mënul nekk un une exception dans un monde loolu mënul nekk parce que lan moom moo tax Afrique rek ngay gis par exemple je vous donne un exemple très concret xoolal tey France ñaata ñaata ñaata ñaata habitants lañ France ils son plus de ils sont à peu près soixante quatre millions d' habitants ñun au Sénégal nu sommes seize millions d' habitants et que suñu budget présidence moom moo ëpp budget par exemple Élysée ñu ne Sénégal amul xaalis c'est c'est utopique Afrique ngay gis un ministre boo xam ne c' est un ministre milliardaire hier nekkul woon dara mais tey il est un ministre mais il est un milliardaire hier nekkul woon dara aujourd'hui il est un un député il est milliardaire hier nekkul woon dara aujourd'hui il est le directeur de telle entreprise nationale il est milliardaire loolu Afrique rek lañ koy gis sans pour autant que mu heurter wala mu alerter benn nit c'est dommage c'est dommage moom moo tax tey fi ñu toll nit ñi dañoo war a jaayante 67 millions effectivement gis nga à peu près plus de 60 donc en fait ñu toll foofu noonu par exemple ñun ñu ne ñu ñu ne ñu maanaam mënuñu changer quoi ba pare ñun ñu toog di ko gëm ñu ne ñu mënuñoo am système système éducatif boo xam ne dafa baax ñun ñu toog ko gëm ñu ne ñu mënuñoo am système de santé boo xam ne dafa baax ñu ne ñun ñu toog di ko gëm tey xoola euh, le la problématique du coronavirus un peu partout ça alerte tout le monde dangay gis ñun suñu secteur suñu secteur informel. ñoo xam ne munoo leen identifier ñoo xam ne munoo leen identifier liñ doon liggéey par exemple benn menuisier boo xam ne suñu koñ la nekk benn tôlier boo xam ne suñu koñ la nekk munoo ko identifier benn borom pitu gu wari boo xam ne sama koñ la nekk mënoo ko identifier maire bi nga xam ne ci koñ bi munoo ko identifier tey par exemple on est dans une phase de pandémie bari ñu ngi leen tënk Sénégal tey ima imagineriez-vous ñu demoon par exemple ci hypothèse confinement et que étant donné ñu ngi commencé di def ku wur fa vingt heures am na ñi nga xam ne ñu doon liggéey à partir de vingt heures wala ñu doon dem vingt et plus dootuñu amati ay revenu wala bu ñu bu ñu ko teelee commencé sax dem beeg dikk bi dem Dakar wàññi Dakar ak dans les dans les auto régions wàññi nañ ko da ngay gis ne ñooñu dootuñu amati lu ñu def dootuñu lu ñu def il ne faisait pas partie du secteur formel ci secteur informel bi la ñu bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci secteur informel bi mënuñu leen identifier mais ñooñu par exemple nan la ñuy def am na benn benn nit bu ma doon waxtaanal démb ñoom fu ñu nekk ci benn dëkk bi ñu nekk Badar nee na ma par exemple jigéen ñi fa nekk ñëpp dañ doon jël ay ay ay carottes mooy li ñuy bay ay carottes ay ay ay légumes genre affaire yooyu yooyu lañ daan jël après j'ai serré un live sur effectivement ñu ne ñoom yooyu la ñuy jël buñ ko jëlee ñu yóbbu ko mbuur fa lañ koy jaay jee mais depuis bi ñu arrêté dem ak dikk bi seen ay activité doxatul dëkk bi yëpp pratiquement kenn defatu ci dara dañuy xëy suba bu ngoon di toog di xoolante à long terme ou bien à moyen terme ñooñu fan lañ jëm amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu ñu naan parce que ci secteur informel bi la ñu bokk. da ngay xool benn receveur tata yaa ngi ci benn entreprise di fa liggéey pendant sept ans yow bulletin de salaire sax mënoo ko am amoo contrat de travail amoo dara secteur informel après derrière ça amul y a aucune volonté boo xam ne par exemple dañuy mën a régulariser ces gens là ba période benn yenn genre calamité yi bu dalee si kaw benn économie bu dalee ci kaw àdduna bi sax nit ñi mën a xam ne en réalité am na leen loo xam ne dafa dal nit ñi mais état mettroon ay dispositifs yoo xam ne dafay alléger la population et que ñun tey suñu état yi dañoo am ay peuples yoo xam ne dañoo passif et que c'est l'individu qui est naturellement comme ça peut-être en réalité si je peux me le permettre nit ki tey boo ko tegee ci benn mbir ba pare bàyyi koog boppam amul benn contrôle boo xam ne citoyen boo xam contrôle citoyen boo xam ne daf ci am danaa noo garaawul dinaa def lu ma neex ñii kat garaawul genre affaire yooyu moom moo tax par exemple tey le peuple doit prendre sa sa place sa véritable place la souveraineté appartient au peuple loolu moom moo am solo donc et peuple bi tant que ñu ngi toog passif yenn genre question yi ay Sénégal lan moom moo leen neex ay querelle de borne fontaine ay yoo xam ne amul benn njëriñ ci la nit ñi di nekk suba ba ngoon. kenn doxul ci changement et que maanaam suñu dirigeant yi wër na yàlla Sénégal suba ba ngoon kenn doxul ci lu am solo ñu bari doxuñu ci lu am solo billaahi wallaahi dañuy toog xoola di wax ay yoo xam ne maanaam monopole la débat ci loo xam ne jëmalul Sénégal kanam jëmalul Afrique kanam et que nit ñi par exemple les gens qui suuf xam nga nit ñi et que man ñan laa gën a mere gën a bañ a comprendre xam nga suñu dëkk yi dañoo toll ci Sénégal par exemple ci vois on a plus de plus de 64 pour cent de notre population elle est analphabète mënuñu jàng mënuñu lire mënuñu xamuñu lu xew en fait ñu ci bëri xamuñu lu xew et que ils sont là passifs à regarder ils ne savent pas quelle direction prendre xamuñu nan la ñuy def ba mën a changer et que ñi nga xam ne ñoom ils ont été ils ont ils eu la chance laa koy mën a wax ba mën a comprendre li nga xam ne moom moo xew un peu dans le monde ñooñu ils ne jouent pas de relais mën a faire passer cette information nit ñi mën a xam ne par exemple boo xoolee biir Dakar Sénégal maanaam da ngay dem ay région entière région wu lëmb amul sage-femme jigéen ñi di accoucher ci ay charette ñu ne loolu noonu lu légitime la lu normal la quoi loo xam ne kenn waru cee wax loolu nit ñooñu jigéen ñi nga xam ne dañuy accoucher ci ay charrette raison wu lëmb boo xam ne par exemple cette violence bu ñu xam ne dañ koy exercer ci jigéen kenn du ci wax quoi c'est comme ça que ça doit se passer c'est c'est ça quoi en fait nga nekk ci benn région wu lëmb amul sage-femme amuñu ay infirmiers yu doy ñu ne non loolu kenn du ci wax quoi parce que le Sénégal n'a pas les mais le Sénégal a les Sénégal a les possibilités très sincèrement pour ñu mën a am sage-femme yu doy. parce que xaalis bi c'est-à-dire a un moment donné li nga xam ne lépp am nañ ko dañ koy yóbbu ci yeneen affaire yoo xam ne amalul kenn njëriñ wala bu nekkee amal na kenn njëriñ sax bu nekkee amal na njëriñ sax maanaam dañuy am nenn noo xam ne yenn nit rek lay jëriñ au détriment de la masse moom moo tax par exemple yii nii am une entreprise taxaw ñu teg ko ci loxo benn waajoo xam ne dafa mel ni Issa Diène wala dafa mel ni Abdallah mais mu jël xaalis bi da koy toje da koy dóor. bu sàccee xaalis bi ba pare non entreprise bi nu mu mënti mel baax na le bas peuple dans tout cela les gens qui souffrent dans ça les gens qui n'ont pas la possibilité de se soigner quand ils sont malades les gens qui n'ont pas la possibilité en fait de payer des études de qualité à leurs enfants mais ces gens dans tout cela et que ñooñu ils font partie de la société c'est eux en réalité qui constituent d'ailleurs la la la société parce que tey mooy li ñuy wax ci suñu dëkk yi te loolu c'est une vérité indubitable moom mooy en réalité rangoo ñu baadoo la mooy siim cere buur te suñu rangoo ñun baadoo la yi bu ñu bu bu arrêté siim cere buur rek billaay wallaay ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu sonn et que dans dans tous les pays du monde tey ay barki yàlla ay dëkk yi ñuy gis ay état lii seen peuple yi ñoom ñoo taxaw rek maanaam am benn boo xam ne dañ ko amoon pour ah, biñ ko atteindre nag ñu ne foofu dootuñu ñu fa jug c'est-à-dire le développement mais mieux le développement durable te développement durable munul ànd ak lu dul transparence mënul ànd ak yenn genre corruption yi mënul ànd ak yenn genre insouciance yi et que tey par exemple imagineriez-vous ñu nekkoon ci benn hypothèse yoo xam ne suñu dirigeant yi dañuy def li nga xam ne moom la moom la moom la suñu dirigeant yeneen dëkk yi dañuy def li nga xam ne moom la suñu dirigeant yi di def mais dëkk yooyu ay révolution moo fay am les gens ils pour rien au monde xoolal tey Hong Kong jamono yële passé même par exemple Algérie lu yàggul dara plus d'une année chaque vendredi ni ñuy génn ci mbedd bi taxaw parce que di xeex pour un meilleur système or ñun suñu dëkk yi kenn du kenn xalaatul xeex pour un meilleur système gars yi dañoo jàpp ni bu ñuy xeex pour un meilleur système Guy Marius Sagna rek moom moo war a taxaw ne non dañuy xeex pour un meilleur système wala benn Ousmane Sonko rek moom moo war a taxaw ne dañuy xeex pour un meilleur système mieux je prendre l'exemple je vais me limiter sur Guy Marius Sagna parce que c'est l'exemple type de la de de la société civile moom rek ngay gis ni par exemple moom mooy taxaw di jaayante naan day xeex pour ñu am système de santé bu baax moom rek nga gis muy jaayante pour ñu am système éducatif bu baax te ñaar yi nii moom mooy pilier wu moom mooy épine dorsale lu dëkk dëkk boo xam ne mënoo jàng dëkk boo xam ne boo feebaree doo faju dëkk boobu mënul changer. te dëkk boobu par exemple ci dépendance lay dëkk ay financement étranger ñoom ñoo koy dundal financement étranger yooyu noonu lan moom moo nekk ci ginnaaw parce que dañ lay jox dinañ am lu ñu la jox de certes par exemple Sénégal dafa soxla pour construire benn stade Sénégal ndax dafa soxla stade olympique lan la koy doyee au moment amuñu hôpitaux Sénégal lan lay doyee stade olympique bi fi Macky Sall nekkee 2012 ba tey ban ban université lañ fi tabax te ñaari piliers dëkk bu amul ñaari prix yooyu munul changer dëkk bu amul jàng bu baax bu amul système de santé bu baax mënul changer te tey ñun suñu suñu suñu Pastef yëpp suñ lépp luy suñu farata rek dañ koo teg ci ay futilité dañ koo teg par exemple sur des choses éminemment politique di folklorisme maanaam loo xam ne par exemple na yem ci bët rek nañ ko gis non mais c'est pas ça qui fera changer le le continent africain et que tey on aura beau essayer d'indexer les les les les gens qui son à l'étranger les occidentaux ñoom la ñoom la ñoom la mais quelque part à à l'intérieur de nos pays il y a problème euh, boo xam ne war nañ ko changer quoi est que moom mooy moo yi nga xam ne danga koy rencontrer dans la société africaine moom mooy yi ñuy dem benn benn entreprise bu toll ni Médis Sénégal di tëj nii comme ça plus de trois mois entreprise boobu fonctionné wul mais kenn yëgu ko quoi. mais kenn yëgu ko kenn doxu ci jéego bu ñenn ñi xawul woon am yenn information yu ndaw yi sax par exemple entreprise bi mënoon naa tëj à jamais à jamais quoi ñu tëj ko 317 employés yi fa nekk dem ñu nekk ci leneen kenn dootu ci waxati parce que ah noonu la war a demee quoi am na ñenn ñoo xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ils ont ils la fait une gestion vraiment calamiteuse léegi entreprise bi bu tëjee après grawul quoi ñoom ils se sont ils se sont avec des millions ou bien même des milliards et que les gens qui qui à l'intérieur de l'entreprise ils peuvent crever yooyu la ñuy xoolee et que seul par exemple mon intérêt personnel compte Afrique ngay gis genre affaire yooyu moom moo tax souvent ñu naan l'homme est un loup pour l'homme quoi te Afrique da ko fay gis toujours quoi boo gisee ñu ne ñu ne ñu ne occidentaux yi dans les sociétés occidentales ñoom ils sont individualistes or que ni par exemple individualisme souvent ci suñu dëkk yi la ëppee mais nit ñi dañ ko dul bàyyi xel. individualisme weesu loolu ñu jox la leen loo xam ne ñëpp ñoom ñoo ko moom les médias sont complices frère loolu nangu naa ko mais le peuple est passif moom mooy par exemple ni ñi gis nga moom laa doon lire tey par exemple ci benn benn femme Aminata Traoré Aminata Traoré cette femme je l'admire quoi elle est mu ne nit ñi par exemple souvent gars yi dañ naan noon nit ñi mais nit ñi dañoo xamut billaahi suñu dëkk yi am na ñu bari ñoo xam ne wallaahi azim da nga leen di mere mais xamuñu. xamuñu lan moom moo xew et que ils ont besoin d'avoir cette bonne information la c'est-à-dire que nit ñi bañ a nekk ci ay détails nit ñi bañ a nekk di heurter conscience su nit ñi nit ñi bañ a nekk maanaam di violenter nit ñi on a des des des choses à revendiquer am nañ benn changement boo xam ne moom la ñu bëgg am nañ beneen comportement beneen type de société boo xam ne lañ bëgg mais nañ ko def ci yar ak nañ ko def avec des arguments solides nañ ko def tout en tenant compte de nos réalités parce que Afrique dafa am ay réalités am nañ ko def ñu teg ko ci loolu noonu pour mën a changer changer suñu dëkk yi parce que tey par exemple man mënoo maa fekk fi ma nekk nga bëgg maa violenter par rapport ak sa benn information je vais pas l'accepter parce que d'abord on part sur les sur les sur les bases du ñu dem après boo ma xippilee sama bët mais man damay gis nit kese la boo ma nee par exemple boo ñëwee andil ma benn argument boo xam ne par exemple dafa leer quoi par nga ne ma HTC TTC xaw ma nuñ koy waxee wu Sénégal boobu noonu institution boo xam ne amulul benn njëriñ Sénégal nga ne ma non lii moom wax dëgg yàlla chaque année ñu koy jox ay fonds politiques plus de cinq cent milliards dañ ko war a arrêté quoi tëj ko mais loolu c'est logique au moment wu ñun amuñu ay hôpitaux yu baax au moment wu jàng bi mu ngi changé étudiants yi nekkoon ci privé bi gars yi dàq leen amuñu ku leen fayal état amatul fay nee na amuñu les moyens au moment où parfois da ngay gis étudiants yi di xeex ndax ay bourse gars yi naan la étudiants yi moom xeex ndax bourse kese moom moo leen fi moom moo leen ñor quoi un esprit sain dans un corps sain nit ki boo amul yenn possibilités boo nekkul dans de très bonnes condition munoo munoo def en fait gis nga gis nga gis nga ñun suñu dëkk yi gars yi dañoo insensible boo xoolee un étudiant ñu ne non étudiant bi bourse rek a ko ñor quoi étudiant bi lii rek moom moo ko ñor maanaam étudiant bi amul dara yow par exemple bourse bi ñu la jox bu nekkee dix huit mille wala seize mille wala dara wóor na yàlla li ngay photocopier ci weer bi rek moom moo ëpp loolu. parfois say parents ci banlieue bi la ñuy dëkk sa yaay day xëy suba ba ngoon di wut benn téeméer boo xam ne daf la koy jox pour nga paase ko. sa papa wala sa papa nekk ci loolu suba ba ngoon di wut benn 1000 francs boo xam ne daf la koy jox pour nga ko et nekk nañ ci benn système boo xam ne d'insouciance boo xam ne la masse en général lu ñu la teg rek dañ naan non noonu la quoi dañoo war a dëgër dañoo war a def li dañoo war a def or que ni en réalité ñun am nañ ay fonds yoo xam ne am nañ benn possibilité boo xam ne tey ku nekk waroon naa mën a nekk Sénégal nekk ci jàmm que mu nekk kiy jàng que mu nekk kiy liggéey. que mu nekk ki nekk ci administration que mu nekk baykat bi que mu nekk keneen ak keneen or suñu dëkk yi yooyu moom moo fa amul qu'on se le dise qu'on se dit la vérité en fait suñu dëkk yooyu moom moo fa amul et que la responsabilité certes suñu suñu la responsabilité elle est elle est d'une part partagée quoi moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo xàmmee tuuti war nañu mën a xamal ñi nga xam ne xamuñu lu bari ñu mën a ñu mën a ñu mën a acter changement quoi et que c'est ça man je pense que ni le véritable débat doit se tourner autour de ces de ces problématiques qui sont qui sont qui sont éminemment éminemment sociales problématique yooyu noonu moom moo am solo et que ñu bàyyi nekk ci ay querelle de borne fontaine querelle de borne fontaine amul njariñ gars yi nañu wax ci li am solo jigéen ñi bu ñu feebaree faju góor ñi bu ñu feebaree faju Sénégal ñu am ay sages-femmes yu doy am na ay région wu lëmb yoo xam ne amuñu sages-femmes loolu boo ko gisoon ci beneen dëkk billaay nit ñi révolution la ñuy def loolu bu amoon ci beneen dëkk parce que loolu en fait dafay déshumaniser la personne nekk ci dëkk yow boo feebaree doo faju mais arrêtez ñun Sénégal nous ne sommes ba nga mën a nekk ci dëkk feebar nga nga ne doo faju nous ne sommes nga nekk ci dëkk par exemple xoolal tey xale yi nga xam ne dañuy judd Sénégal te seen ay parents mënuñu leen inscrire école parce que ils n'ont pas les moyens mënuñu leen sax yóbbu ñu jàngi maanaam tey ci loolu lañu nekk quoi ci paradigme boobu la ñu nekk. da gis te nit ñi ils ils ne le font pas à gaieté tey kan mooy am sa doom Sénégal fi mu toll au vingt et unième doom jur ko maanaam munoo ko yóbbu mu jàngi c'est très difficile quoi gars yi boo demee ba am et que les conséquences nous le voyons a posteriori da ngay gis kenn koo xam ne yóbbuwuñ ko école quoi par exemple man sama yaay damay kaf moom mooy wax ak moom mu naa ma moo man de sama yaay moo ma tooñ ay bu ma yóbbu woon école et que sama yaay leer na ma ne yaayam il été elle a été par exemple non mais système bi moom moo tax jàngul école système bi moom moo tax sama yaay yaayam jàngul école moom jàngul école te sama yaay mooy wax ak moom te mu ne ay sama yaay bu ma yóbbu woon école et que noonu la demee et que problématique yooyu noonu ñoom ñu doon jànkonteel ba tey am na ci ñoo xam ne ñu ñoo bokk génération problématique yooyu la ñuy jànkonteel ñu dem ba tollu benn niveau bi jànguñu école c'est-à-dire xamuñu lu xamuñu xamuñu lu bari bu ma naan xamuñu bari ñoo ñu gën a xam àdduna nag loolu du deñ mais am na ay problématiques yoo xam ne tey sama yaay mënuma ko ko expliquer ba mu comprendre ko barki alxuraanu kare def naan ma non non toogal yii moom bu ci dugg boo ci duggee nii boo ci duggee naa ñun bu ñu duggul jugul dugg ci lii kañ la Afrique di changer bu ñu jugul par exemple toucher les maux du pour que cela puisse partir en éclat la kañ la Afrique di changer c'est-à-dire foofu la ñu toll tey dañoo nekk ci euh, dëkk dëkk yoo xam ne maanaam le mal est tellement euh, le mal est tellement profond que ni lu dafa yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo xam ne par exemple ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite dañuy jàpp ni toog bañ a wax wala bañ a def ay acte wala bañ a bind wala bañ a bëgg a système bi loolu noonu loolu noonu mooy normal en fait la passivité. ça doit être la normalité loolu la ñëpp di wax par exemple non loo jug di def rek gars na ne la non jaru ko yow kay xoolal noo ci génne rek non non mënuma cee génn tànk ñi ci des génnuñ ci c'est-à-dire que par exemple ñu am une conscience collective mënuma ci génn tànk société bi changé wul de façon structurelle loolu moom moo am solo or en réalité Afrique ci ci système yooyu la ñu nekk man naa xëy nekk sama kër lekk naan. waa kër gi ma dendal bu ñu lekkul naan nekkuñ ci sama yoon nekku si quoi man naa jéem a xool rek nan laa ci génne c'est-à-dire que Afrique ñun ci ci ci concept yooyu la ñu nekk et que am na ay yeneen dëkk yoo xam ne ci àdduna bi l'histoire nous a montré cela am nañ ci ay passé yu ñu jaar et que li ñuy dund Afrique nit ñi dañ ko jàppee comme une fatalité or du fatalité surtout simplement quelque chose qui est savamment organisé nit ñi fatalité lañ ko jàppee or du fatalité loo xam ne mën naa changer la parce que am na ay dëkk yoo xam ne gis nañ leen ñu changer Corée du Nord Corée du Sud de 1953 mais c'était une guerre fratricide bo ñaari dëkk yoo xam ne dañ doon xeex Corée du Nord Corée du Sud tey Corée du Nord ak Corée lan la ñu ñëwee beneen dëkk de 1950 à 53 boo xoolee tey ay le Rwanda 94 tey ci lan la ñu nekkoon guerre ci seen biir dëkk xoolal tey ban ban man foo mënti nekk ci àdduna bi rarement ngay gis un Rwandais non il n'est il n'est pas contraint de de faire euh, de, de prendre en fait euh, la Méditerranée pour réussir sa vie il na le sera jamais parce que quelque part chez lui il a le minimum nécessaire pour vivre de façon convenable or que ni ñun suñu dëkk yi tey man jeune boo xam ne man am vingt cinq ans wala ma am vingt quatre ans wala ma am vingt ans pour ma dund bu baax mais je suis obligé ma jaayante sama àdduna bu ma dundee baax na bu ma deewee baax na naa jël gaal bi parce que su ma dundul su ma dundee sama dund bi amul njëriñ su ma deewee yàlla baax na nañ ma ñaanal mais man mënatumaa xëy di gis sama yaay barki alxuraanu karim du am lu mu lekk mënumaa xëy di gis sama papa toog ci garam koñ bi amut lu mu def mënatumaa xëy di gis samay rakk di dem ñu leen di renvoyer école parce que amuñu ay bic amuñu ay cahier amuñu ay fourniture scolaire loolu moom moo tax ñiy dee ci gaal gi yëpp ils sont contraints de faire cela et que maanaam loolu dafay am ay dégâts collatéraux dégâts collatéraux yi moom ku jigéen ki yow man sama par exemple sama yaay je prends l'exemple da ngay gis nit dugg na ci gaal bi dem ñàkk fa bakkanam mais lan la bàyyi ci ginnaawam yaayam la bàyyi ci ginnaawam et que dans nos sociétés am na yenn conception yoo xam ne moom moo fa am nit ñi naan la par exemple sa doom bi de daf cee war a génn parce que yow yaa ko liggéey yow ku jigéen ki nag nga àddoo sa responsabilité boobu man bu ma amee fii damay ñëw ne sama yaay bàyyi ma ma dem bàyyi ma ma génn parce que boo ma bàyyee ma génn dina tekki teral la yaay teral la ci say digg nawle conception boobu la ñu am et que quelque part ñu jàpp ni la politique n'a absolument rien là-dessus noonu la ñuy xalaatee dañuy jàpp ni politique amul benn benn benn benn effet benn rapport par rapport ak man suma pauvreté. politique amul benn rapport par rapport ak man sama manque de perspective d'avenir politique amul ak benn rapport par rapport ak man sonn bi nga xam ne sonn naa ko ma nekk un jeune boo xam ne je suis à fleur de l'âge et que je peux pas emploi mais gis nañ ko parce que jamono yële passé ku bàyyi xel gis na ni Marème Faye Sall foo xam ne demoon na fa benn xale daw ba ci moom naan ko Marème Faye Sall ngir yàlla may ma lu ma jëndalee sama sama yaay saaku ceeb mais j'étais meurtri bi nga xam ne damaa dégg lool barki alxuraan karim j'étais meurtri xale bu ndaw koo xam ne il est à fleur de lage sama morom taxaw naan Marème Faye Sall may ma lu ma jëndalee suñu waa kër ceeb sama yaay ceeb te parce que en fait nous sommes contraints de réussir dans la vie loolu quoi en fait si schéma boobu la ñu nekk yow mi nga xam ne nag yow dangaa am looy bañ ti es obligé nga réussir soit tu réussis soit tu crèves tu vas hypothéquer ta vie loolu moom moo fa nekk loolu moom moo nekk Afrique et que la majorité dañoo nekk ci benn conception boo xam ne dañuy toog rek dañ naan non non après les affaires vont changer les choses vont changer non non defal lii defal laa demal seeti sa nijaay diw non non non ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ils ont les moyens c'est-à-dire que ni ñoom amuñu les mooy sax mais le Sénégal en soi a les a les moyens ci li ñu war a financer la ñu financer wul ci la ñu war li ñu war a farlu la ñu farluwul. ci li nga xam ne la ñu war a wax la nit ñi waxut et que la société civile dans tout ça et que les gens qui sont assez éclairés dans tout ça c'est-à-dire quelques dérin quelques gens yoo xam ne ñoom ils son conscients de ce qui se passe da ngay mel ni Ousmane mel ni man ñëw taxaw wax wax wax wax wax wax wax wax bay bëgg a dee gars yi jàpp la jël fenn foo xam ne dañ la fay dugal nga tëj sa làmmiñ derrière quoi derrière ñi nga xam ne ñu ngi fa derrière quoi. yow boo tëddee nan ngay nalawee eh, ana sa conscience yow yow nan ngay xalaatee quoi yow boo tëddee nan ngay nalawee eh. parce que en réalité loolu la quoi maanaam un état un chef d'état man je pense que ni il doit être un bon père de famille parce que man leer na ma ni Macky Sall barki alxuraanu karim Euh, un bon chef d'État, il doit être un bon père de famille. Un responsable, ça, il doit être un bon père de famille. bon père de famille, c'est pas, c'est pas que je suis misogyne ou quoi. Non, c'est pas ça. Mais un bon père de famille, d'abord, il faut respecter Djabaram, quoi. Après, on avance. Comme ils vont agir en concomitant. C'est-à-dire, pour voir par rapport ñoom qui ils live. amul benn benn benn benn connotation quoi c'est-à-dire voilà quoi nous sommes tous égaux et que un bon chef d'État il doit être un bon père de famille dans la mesure où man leer na ma ni Macky Sall et que leer na ñëpp doomam yi ci école yi gën a baax la ñuy jàngee doomam yi yëre yi gën a baax la ñuy sol doomam yi bu ñu feebaree ci hôpitaux yi gën a baax la ñuy fajoo man doomu baadoola bi ci école yi gën a bon laay jànge man doomu baadoola bi ci hôpitaux yi gën a bon fa laay fajoo bu nekkee sax am na hôpitaux boo xam ne dama fay fajoo ainsi donc un un un un d'État doit être un bon père de famille c'est-à-dire que man mënu ma ne maay le père de la nation foofu la ñu ci contexte boobu lañu nekk di gis ni par exemple Sénégal chaque année la mortalité infantile ci ban ban ban ban ban niveau la toll jigéen ñi nga xam ne dañuy jur ci ay conditions yu extrême di ci ñàkk seen bakkan am ñoo xam ne dañ ciy ñàkk seen ay doom te tout simplement dara taxul am na ay dee yoo xam ne nit bu ci deewee yàlla ci certes yàllaa ngi ci ginnaaw mais wallaahi azim manque de soins moom moo tax kooku ñàkk bakkanam ay jigéen ñu ngi ci àll bi Sénégal di confronté wu ay conditions yu difficile a difficile di am doom ci conditions yu metti di ñàkk seen ay doom da nga koy gis Dakar da nga koy gis dans les régions tout simplement par manque de soins moom moo tax loolu di am et que fatalement la société elle est la moom de dafa ñàkk ba kanam bi mu doon matu lan moom moo tax est-ce que am na par exemple maanaam le dispositif médical bi war mais bu loolu noonu lorsque tout cela est au rendez-vous ñëpp dinañ d'accord ne tey maanaam loxo yàllaa ñu taxaw mais am na lenn loo xam ne maanaam yàlla le poids de la société xam nga lan moom moo tax xam nga moom moo tax lii nii am na lan moom moo tax may wax ni lu nekk rek nit ñi dañ ciy dugal yàlla te am na leen loo xam ne jéggi na jéggi na jéggi na jéggi na lool loolu responsabilité nit ki la tey boo xoolee les pays occidentaux seen espérance de vie par rapport ak ñun en Afrique suñu espérance de vie foofu rek nga koy xam. parce que ils se soignent bien bu ñu feebaree dañuy faju leur niveau éducatif maanaam am may na leen permettre ñu xam li baax ak li bon li nga xam ne moom la ñu war a lekk wala noonu la ñu war a comporter wala noonu la ñu war a doxee moom moo tax munoo munoo méngale suñu dëkk yooyu ci espérance de vie par exemple les occidentaux bu nekkee par exemple en moyenne ñoom am nañ quatre-vingts ans pour dund ko ñun par exemple da ngay gis ne suñu dëkk yi soixante ans sax parfois na ci yenn dëkk yoo xam ne amuñu ko ci espérance de vie ci ban yàlla la. ban yàlla moom mooy bàyyi occidentaux yi di dund quatre-vingts ans ñun mu ñuy bàyyi ñuy dee à quarante-sept ans ban yàlla la ban yàlla la loolu tout simplement système sanitaire bu baaxul moo koy def loolu tout simplement lekk bu baaxul moom moo lay rey loolu tout simplement parce que angoisse angoisse existentielle bi ngay dundee loolu kese la parce que Sénégal da ngay judd di xalaat ba goitre ba goitre billaay da ngay xalaat ba feebar sama yaay mu ngi xalaat nan lay def ba ñun ñu lekk ñun ñu ngi xaar nan la ñun ñu ngi xalaat saa su nekk saa suñu xëy nan la ñuy def par exemple ba sama yaay man nan laay def ba sama yaay mun koo génne ci guute bi ke sama papa mu ngi xalaat nan lay def maanaam ba yor njaboot bi ñun ñuy daw ci cercle boobu nan la ñuy guddee fan. et loolu lépp alerté wul kenn c'est-à-dire dañoo nekk ci benn système boo xam ne buñ ci tollee saa yi ku nekk danaa noo garaawul quoi après dina baax yàlla baax na tour yàlla moom moo ñu teg lii yàlla am na loo xam ne moom moo ko teg moom mooy moo ñu def ñun ñu nekk ay africain en même temps ñu nekk ay sénégalais nous sommes fiers d'être des africains d'abord de surcroît nous sommes fiers d'être des sénégalais loolu yàlla moom moo ñu ko def mais yàlla nag sàkkuñu pour ñu dee ci pauvreté sàkkuñu pour ñu dee ci ñoo xam ne dañ leen jox suñu xaalis ñu koy sàcc sàkkuñu pour ñuy nangu loolu parce que gis nañ ni quelque part am na ñenn ñoo xam ne jug nañ taxaw ni lii ça doit mu arrêter gis nañ vers les années mille neuf cent soixante six la révolution culturelle prolétarienne en Chine chinois yi bi ñu jugee taxaw bëgg a changer seen système de Deng de de Mao Zedong Mao Zedong à Deng Xiaoping mais affaire yi dafa changer si que loolu la parce que dañoo gis ay exemple yoo xam ne ñooñu dañoo jaayante ba seen ay dëkk changer ñun ñu ne par exemple ñun Afrique warul changer quoi. Afrique dafa war a dee ci pauvreté Sénégal de surcroît maanaam le Sénégal n'a absolument rien d'exception su ñu waxee ñu ne non Sénégal moo tane dëkk bi Sénégal moo tane dëkk bi le Sénégal n'a absolument rien d'exception Sénégal ak yeneen dëkku Afrique yi yi gën a pauvre ñoom ñoo yem amuñu daray exception ci yeneen dëkk yi benn dëkk lañ benn benn dëkk la en fait xam nga lan moom moo gën a métti à travers le Sénégal tu peux tu le Mali tu peux la le Burkina tu peux la Côte d'Ivoire tu expérimenté expérimenter le Niger ñun ñoo bokk les mêmes conditions de vie ñun ñoo bokk par exemple les mêmes misères ñun ñoo bokk les mêmes maux tout simplement suñu ay maux du dara lu dul par exemple ay dirigeants yoo xam ne baaxuñu loolu la loolu la c'est et dañuy toog ci benn niveau boo xam ne dañuy toog ci benn benn benn benn tolluwaay boo xam ne ku nekk day déserter day déserter ses responsabilités et que il faudrait que par exemple ñu touche ñu toucher l'origine di mal bu ñu toucher l'origine du mal tout toutes ces considérations vont vont partir en éclat maanaam considération yooyu yëpp ay yëpp ay partir en éclat par exemple socialement ñun ñi nga xam ne dañoo jiite dañoo war a am cette conscience maanaam xam ne ñun ak ñoom nous sommes à dignité égale nan la ñuy nekkee à dignité égale maanaam ki nga xam ne daf maa jiite gënuma ndey gënuma baay gënuma xeet gënuma askan yàlla moom moo ko teg sama kanam man mi nga xam ne nag moom moo ma jiite dafa maa jiite rek waaye ci samay waaw lay wëy mais ñun nag en Afrique ñun nos dirigeants ils ne sont bons que pour réprimer les gens de leur pays leur peuple loolu rek la ñu baax quand ils sont ailleurs ils courbent les bu ñu demee ci biti dañuy sëgg bu ñu ñëwee ci seen dëkk ñoom ñooy les rois Afrique rek ngay gis un président nekk ci kawam ñu naan ko ay chef de la nangam ak genre affaire yooyu fii da ngay yi Macron Macron la Macron Macron la il est là comme un comme un homme tout simplement il est le président il n'a absolument rien d'exception mais ñun Sénégal ñu président sax balaa ñu ko waaye son excellence son lii son là gis nga Afrique par exemple dañ lay jàpp pare di la idéaliser nga nekk un président tout simplement tu es simplement un président tu es un ministre tu simplement ça tu au service du peuple loolu la mais tu doo mais gars yi dañuy nekk ci benn paradigme boo xam ne yow le président wala yow la benn ministre benn maire koñ yow tu es un démiurge quoi yow tu un demi-dieu kooku nan la lay respecté kooku fan lay nekk naan day sonal sa bopp pour nga am hôpitaux bu baax ay hôpitaux yu baax kooku fan lay sonalee boppam parce que yow gëmoo ni kii yow yaa koy fay pour mu liggéey Macky Sall huit milliards yi muy am fonds politique ci keesu Sénégal lay jóge ñu ko koy jox moom ak njabootam ñun ñoo leen di dundal suñu xaalis l'argent du contribuable moo moo leen di dundal ministre bi nga xam ne pare ministre yëpp quatre-vingts ministres yi mu am yëpp maanaam xaalisu Sénégal lañ leen di fayee yëpp ku ci mënti nekk maire bi nekk suñu koñ xaalisu Sénégal lañ koy fayee xaalisu sénégalais moom moo koy fay mais kooku ban lan la ma ëppalee tout simplement dafa am foo xam ne moom lañ ko teg dans le temps qui lui est réparti par le Seigneur mu am benn travail boo xam ne daf ko faa war a def et que ça doit être un travail loyal loolu rek la. or que ni nag ñun suñu dëkk yi maanaam dañoo dépassé conception boobu ñun bu ñu jiitee par exemple dañ naan fal nañ ma benn affaire sama ay mbokk ñëw ñu woote xew woote lii woote laa ku nekk ñëw sama doom bi tekki na maanaam société bi la en fait effectivement maanaam moom la moom la moom la moom la benn femme doon wax mu ne maanaam ñun la la corruption elle est consubstantielle à nos modèles corruption maanaam dafa consubstantielle ci suñu modèle société dañ lay fal benn affaire yow dañ lay fal pour nga régler ay problème say waa famille suba gi ñu woote xew parce que sama doom bi tekki na fal nañ ko ministre or sa doom bi maanaam ay responsabilité ñoo greffé wu ci kawam loolu moom mooy yow demal sàcc ji yow la ñuy xaar demal sàcc ji xaalis askan bi nga ñëw pour dundal ñu loolu moom moo fi nekk sama yaay moo may njëkk a woo ne ma diw Ousmane ma ne ko waaw mu ne ma fiñ la fal moom instant yi kay alhamdulilah woo naa sama mbokkuy diw waaw yow kay moom yow yaay suñu yaakaar xamoon nañ ni di nga tekki loolu Afrique rek la am Afrique rek la am loolu lu ci yoonu yàlla ban yoonu yàlla loolu yoonu yàlla nekku ci sàcc yoonu yàlla nekku ci fal nañ la loolu yoonu yàlla nekku ci billaahi yoonu yàlla nekku ci fal nañ la dañ régler ay problème tu le maire de la de, de la ville no tu amener la ville à des lendemains meilleurs mais Sénégal par exemple dañ lay fal ni ñi jàpp ni non tekki nga moom kay xamoon nañ ni dina yegg fii effectivement maanaam inégalité sociale bu amee dafa war a fondé wu ci mérite mais ce n'est pas à la à travers l'argent du contribuable l'argent du contribuable ça en fait l'argent mal acquis ne sert jamais or que ni Afrique nag c'est tout simplement le contraire carrément le contraire Afrique moom l'argent du contribuable da nga koy lekk nit ñi di la gën a respecter nit ñi di la gën a jox cër nit ñi di la gën a fonk nit ñi di la gën bëgg en fait Afrique noonu lay doxee yow argent xaalisu jàmbur yi rek ngay lekk billaay ñi ñu jiite dañoo am ay part de responsabilité yu bari ci li nga xam ne problématique bi nga xam ne yi nga xam ne maanaam la société africaine da koy jànkonteel ngay gis nit ñi di dee ci Méditerranée bi dañ ci am responsabilité ngay gis nit ñi di di di dee ci àll bi ci ay conditions yu metti dañ ci am ay responsabilité